mbeddu Allemagne yi Francfort xool leen mbedd yi fii mooy centre ville bi mais xool leen boutique yëpp restaurant yëpp tëj nañ xool leen fii yëpp tëj gis nga xoole fii yëpp dañoo tëj gis nga yéen a gis bu baax boutique yëpp tëj gis ngeen amul dara dara dara dara dara fi mu toll nii lu ubbi ay benn benn nit ngay gis ci mbedd mi ñuy ki gisoo leen fii yëpp tëj magasin yëpp tëj te euh, ragal naa incha allah tey ci guddi dootu nangu kenn ku génn dañuy def na France ak euh, ak Italie waaye yéen a ngi gis ñëpp a ngi nit ñëpp a tiit fi mu toll nii ñëpp a ngi toog seen biir kër yi ay benn benn ngay gis yoo xamante ni ci ci mbedd bi fii da doon fees dell dell ba nga xamante ni nit ñi dañuy waaye fii day bloqué la ci McDonald's sax dafa fermé gis ngeen fi yëpp tëj mais ragal naa ni fii ak suba sax doot ñu nangu kenn kenn kenn kenn koo xam sax di ko génn ay benn benn nit ngay gis. ni situation bi ñun sénégalais yi nekk Italie yëpp ñoo bokk actuellement même situation quoi ñëpp ñi ci quarantaine bi ñu ci kër yi man ñii di wax ak yow depuis 10 jours man mi waxal yéen plutôt depuis 10 jours maa ngi am quarantaine. en quarantaine liggéeyuma fi ma doon liggéey gars yi dañuy loo jusqu'à ba 2 avril quoi 2 avril prochain incha allah ñu xool situation bi ndax dana décanté wala décanté wu ndax actuellement bu ngeen bëggee dëgg dëgg moom sénégalais yi nekk si Italie yëpp la majeure partie nag ni euh, si ëpp daal si njaay meeg jënd bi lañ doon yëngu noonu te instant bi gis ngeen dëkk bi ville morte la ville fantôme kenn doxatul kenn magasin yeeg. lépp tëj na baaree restaurant yi lépp fu ñu daan liggéey daal lépp tëj na noonu la situation bi la fi demee sénégalais yi ñëpp ñëpp laa même sax sénégalais sénégalais yeeg italiens yeeg ñëpp étranger bu fi nekk ñëpp a ngi seen kër yi toog quoi si quarantaine bi respecté ko te Séné comité sénégalais tamit nangu ko quoi respecté ko ñu nekk popula kii comité bu discipliné lépp lu autorité italien dogal gaa yaa ngi si respecté ko quoi ñii si kër yi kenn génnuñ amul amu seeti collègue amul seeti ami sa xarit ñëpp a ngi toog seen kër yi quarantaine quoi mais affaire bu xaw metti nag xam nga yow suba ba ngoon rek tëju si kër doo génn doon def dara lii ñuy autorisé mooy nga dem supermarché dem duggi après dellu si waat wala nga xaw feebar dem sa mercin loolu wala am na ay quelque personnes yu nekk si ci entreprise yi wala ñu nekk si alimentaire ñoom ñu ngi liggéey quoi mais pour ñooñu la ñu autorisation. wane ne dañuy liggéey quoi te autorisation benn feuille la boo xam ne surtout de si nekk fi ngay liggéey sa date de naissance lépp dans le cas bu la policier yi arrêté laaj la ban motif mooy tax ngay dox man ñoo leen motif bi ngay dox quoi voilà noonu la fi demee situation sénégalais yi moom actuellement ici en Florence moom ñu ñëpp ma bokk kaa kuy jaay ak kuy liggéey ak ñëpp ñu ngi ci kër yi toog quoi en quarantaine Voilà la situation. Kim depuis Paris, alors euh, tout comme vous le savez, l'actualité, le Covid-19, ce virus. Alors en France, le confinement est en place depuis mardi 17 mars à midi. Les Français, ont l'obligation d'être confinés chez eux. Les déplacements sont limités au strict nécessaire et les contrevenants s'exposent à des amendes qui vont de 38 à 135 euros. Les rues sont désertes, les contrôles de police, une mesure qui a été prise pour limiter la propagation du coronavirus, euh, tout comme nous le savons tous. Comme je vous ai dit, les rues sont désertes. Ici où nous sommes à Bagneux, du département du Haut-de-Seine, en région Île-de-France, dans l'arrondissement d'Antony, au sud de Paris. Vous le voyez avec des images qu'on va vous montrer tout de suite. Il n'y a presque personne dehors, les rues sont quasi vides. Alors, des gendarmes et policiers sont déployés pour contrôler les passants. Il faut d'abord une autorisation de sortie pour le strict nécessaire. Et quand je parle de strict nécessaire, c'est vraiment ça, le strict nécessaire. Comment on passe nos journées confinées C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Bah, rien de spécial, on est là sur le net à suivre des informations, à lire euh, des livres, et ben dormir, <laughs> manger, vraiment manger. Parce que vous le savez, quand t'as vraiment rien à faire, t'es obligé de, de manger, c'est comme mon cas et je pense que je vais prendre encore beaucoup plus de poids. Et eh ben, c'est ça. Pour rappel, on peut dire que la France est à 10 995 cas, dont 1122 sont considérés comme des cas qui sont graves. Et 372 décès sont désormais confirmés. parce que ville cas est euh, yatta boori am na ay cas Malmo bu ma gën a jege am na ay cas waaye ñun fu ñu nekk nii Kascona amagul cas tu sais waaye nag tëj nañ école yi tu nit mënul génn nit mënul dugg tu sais ah, na laa ko expliquer même seen frontière yëpp tëj nañ ko tëj nañ seen frontière yëpp xam nga waaye nag école yi tëj na université yu mag tëj na waaye seen épicerie seen supermarché yi tëjul seen supermarché yi tëjul teewul nit ñaa ngi dem nit ñaa ngi ñëw tam aussi nit ñaa ngi liggéey du ñëpp nag du ñëpp. train yi dem euh, ay Allemagne walla yooyu ñoo fiy jaar gis nga gaar bi ni mu mel ay milliers laa lay wax ñoo fa daan nekk gis nga ko kenn nekku fi gis nga train bi tam si biir train bi ni mu mel gisoo benn nit beneen bi tam beneen station la bu ma la njëkkee yónnee beneen station bu mag la boo xam ne moom itam comme bële la train yi yëpp dañ fay jaar. mais gis nga ko gisoo benn nit c'est-à-dire situation bi daal fi mu toll nii loo foo ko takk ngeen xalaat yéen fa lay nekk rek wees na euh, li may déploré mooy Sénégal damay gis ay audio ak ay video ay nit yu wax ay waxu dof yoo xam ne man damay tiit ndax fii tubaab yi mesures yi ñuy jël ku fi ñëwoon ba gis ko boo déggee ku taxaw naan feebar bi amul la wala lii wala sëriñ bi wala wax yenn wax yi man damay tiit parce que ñun fii ni ñuy dund rek ñun ñoo ko xam ni ñuy du kii ñun ñoo ko xam moo tax bu ñu déggee kuy wet jëm a weddi feebar bi wala yi ñun dañu am waaw affaire coronavirus bi bon ñu ciy jël ay mesures comme yeneen pays yi ñu koy jëlee parce que comme affaire de virus la moom mooy loolu quoi tëj nañ frontières yi même actuellement Nouakchott à partir de vingt heures dañuy fermer frontières yi kenn du dugg kenn du génn bon ministère de la santé mi ngi distribuer ay. Euh,

mais sinon bon ni ngi jël quoi ni